kan la ñuy wax carte tey kan la ñuy wax merci. policier jour bu Ousmane Sonko di mars ndax suñu procès bu ko kenn tey bàyyi leen ko mu mars ngir yàlla ak yónnente bi ndax ñu mun a procès si jàmm ak salaam. et doo wax merci waa police ak waa gendarmerie nag ah, nag ah police ak gendarmerie ñun fii lañ leen wax yàlla ñu yàlla may ay jëkkëru gendarme wala ay jëkkëru policier la bip la bip waa gendarmerie eh, eh eh bul fàtte waa gendarmerie de la bip jërë ngeen jëf yàlla ñu may ay góor yu mel ni yéen yéen kenn amul seen moroom ah la bib yéen kenn amul seen fay yéen yéen aar jigéen ñi ci réew mi toroxaloo leen ñu yàlla nañu yàlla may ay jëkkër yu mel ni yéen amoo leen jëkkëru policier wala gendarme ngeen may ma ah amoo leen man bib laay sëy bib yow bib ngay sëy man gendarmerie laay sëy coow li jeex kaa leen ñu sëy gendarmerie wala police waay xale jigéen ñi wuti leen jëkkëru gendarme wala jëkkëru policier bu ngeen amul loolu amoon leen kan la ñuy wax carte tey kan la ñuy wax merci. policier yéen lay waxal jour bu Ousmane Sonko di mars ndax suñu procès bu ko kenn tey bàyyi leen ko mu mars ngir yàlla ak yónnent bi ndax ñu mun a procès si jàmm ak salaam. et eh, doo wax merci waa police ak waa gendarmerie nag nag. ah police ak gendarmerie ñun fii lañ leen wax yàlla ñu yàlla may ay jëkkëru gendarme eh, wala ay jëkkëru policier la bip la bip waa gendarmerie eh, eh eh bul fàtte waa gendarmerie de jërë ngeen jëf yàlla ñu may ay góor yu mel ni yéen yéen kenn amul seen moroom ah la bip yéen kenn amul seen fay yéen yéen aar jigéen ñi ci réew mi tama xaloo leen ñu yàlla nañu yàlla may ay jëkkër yu mel ni yéen amoo leen jëkkëru policier wala gendarme ngeen may ma ah amoo leen bip laay sëy bip yow bip ngay sëy ma gendarmerie laay sëy coow li jeex kaa leen ñu sëy gendarmerie wala police waay xale jigéen ñi wuti leen jëkkëru gendarme wala jëkkëru policier bu ngeen amul loolu amoo leen